mooy mhm. tey dañuy taxawal solo mhm. ci suñu parti politique mhm. muy eh, yi ñu eh, euh, mouvement daara yi passif nga xam ne doomu daara yi ñoo jël initiative ñi ci gis bokk seen bopp ci li ñuy liggéey ñoo jël initiative ne dañuy taxawal kuréel ni mu amee mouvement des cadres am mouvement magi Pastef ak yeneen ak yeneen ñoo dañuy taxawal loolu comme nag dañoo ñëw ci këru diine ñoom sax yónnee woon nañu ci kër yëpp nag yëgle ko yónnee nañu ay ndaw woote nañu yëgle yégal ko waa këru diine fii euh, yoof am na ay kilifa yoo xam ne bokk nañ ci comité d'organisation te dinañ fa teew tey waaye nag ñu fàttaliwaat leen ko rek ne leen euh, comme suñu projet ñun dafa di projet bu inclusif boo xam ne Sénégalais yépp la jublu dañu jàpp ni mbirum daara ak mbirum di lu am solo la pàcc bu am solo la ci réew mi moo tax ñu koy taxawal fas yéene ci mu doon laboratoire boo xam dañ ci xalaat lépp luy suuxat diine ak lépp luy Euh, articuler euh, relation yi diggante état ak diine ji parce que donte laïcité la ñu woote waaye nag ñaari réalité yu ne ci dëkk bi la te benn mënul dem bàyyi moroomam ca gannaaw li ko firndeel mooy lii bu amee rek képp koo xam ne acteur politique nga wala ngay acteur étatique li nga sol sa daal la ñëw fii noonu lañ koy defee bu amee feneen kon ñu dalal seen xelit Euh, ci message bi di fàttaliwaat ni dégg nañ ko bu baax a baax waaye liñ ci bëgg a yokk ci lu gàtt rek li ngeen wax dafa am solo mooy ñun dañoo ji projet politique ñëw teg ko ci chat premier li mu wax mooy démocratie conquête pouvoir ci jàmm ak dal ak li constitution permettre wax ak sénégalais yi jaay leen projet buñ ko gëmee bu ñu demee fa ñuy tànnee su dee doy nañ leen ñu tànn ñu jaaruñu ko ci voie militaire wala beneen voie sëriñ bi li xaw a ñuul ci mbir mi rek mooy bu dee ay nit dañoo jóg taxaw ne nag diw du egg fa ñuy tànnee foofu la problème bi nekk waaye nit jógee ne jàpp nañ ni ànd naa doole te askan wi ànd naag moom ba dinañu dinañ ko Euh, faqatal ba du egg fa ñuy tànni foofu la problème bi nekk bu ñu bàyyee ñëpp ci seen teef ñu egg fa ñu war a yegg Sénégalais seet ki leen doy ñu tànn ko coow du am waaye ne yor naa sama justice te dinaa faqatal kii ba du egg fa ñuy tànni te lim bu takku ci Sénégal su ma jàpp su ma ñemewuloon yàlla sax dinaa ne su ma ragaloon yàlla sax dinaa ne li ëpp ci Sénégal ne ñun gis nañu suñu bopp ci lii foofu la coow li yëpp nekk moo tax amrihi d'accord naa ci baaligu amri hmm. maa yaftahi llahu min rahmatin falaa hmm. hmm. ay yooyu ñu yóbbante la ko incha allah bu yàlla ne di nga eddi bu soobee yàlla nag moom a jaaxal boo nee di nga ci moom amul kenn ku ko mën a tey incha allah bàyyi xel loola bàyyi xel yàlla. soobee ma xin ma dolli la loolu. jërëjëf nga daar loo ko. jërëjëf nga xam ne nit bu ne woon tey di nga dee. Hmm. te sa bakkan waru faaya. Hmm. ci dara. loolu ma doolee la ko. Hmm. ñun nag du ñu ay sëriñ yi tëju rek. yor sunuy kurus yi non non dañuy dañuy suivre actualité. di ko faram-fàcce ngir yu mel nii moo mm. parce que am na fa bu fa réew mi tolloo ñun ñooy génn arbitre mm-hmm. mm. ba pare nag fexe ba li ñuy wax ñu bañ ci fësal benn parpar mm-hmm. Mm-hmm. ndax kat kii toogal la xamoo kan la de def nag ku ñëw nga sama xarit lay tamu fekk yàlla noonu ay bor loon mm. xaritoog ñëpp rek ku yàlla teg na muy jàppal lii mooy cëru nitu diine. Hmm. lu nu seex loolu mën a wax si am loolu nu seex loo xam ne dañuy dañuy weex sax. xam hmm. nga mbiru portable boobu amaana ñu bari ñu ngi koy dooree. Hmm. mais c'est juste bëgg wax ne rek am am na yaakaar naa jëwlan. xam ku ñëw di bàyyi loo xel bëgg sa sax xoolal nga ah waaw sa moom dafa toj dama ne man bon day xam nga man moom ku yóbbu oote rek. <laughs> yëgu moon ne sax dafa toj. nga ne ma ah déedéet lii waroo ko yor. yooyu. ay gor lañu. Hmm. yoo xam ne ay gor lañu. lu hmm. ko yëngalee daf ñuy marqué. weer na jërëjëf lii ma la hmm. yooyu rek. bu soob yàlla. yàlla rek fi nekk. Ah, la simple. lu sotti rek yàlla ci ànd. lu sotti. yàlla ci ànd gis nañ ay fir aw laaj bi fi jaar. Afrique du Sud. yan xalaatu loon prisonnier vingt cinq ans ne mooy dina wëlbati ay njàngale lu yàlla jàngale lu tax nit ñi duñ ci bàyyi. yonent yàlla Yuusufa ku yàlla ne da nga yegg hmm. di ku mu ne doo yeggee hmm. doo yegg yàlla ñu ngi leen di gërëm

nga ñaanal yàlla defal la fan bu àll fa bu wér Seydina Ousmane ñu ngi lay siyaar di la nuyu te dal wax dalal jàmm euh, samay kàddu nag maa ngi koy jëmale ci seen diggante yeen ñaar ndax euh, leneen li ci jiitu ñii wax nañ ko ba pare te dañ na wax bu dee benn tam mbooloo bokk suñ boolante bu kenn waxee rek mu doy euh, tey nag damay wax ne ñetti gan dañ fa daje ñetti ñetti mbokk dañ fa daje mbokkum diine ak mbokkum dëkkandoo ak mbokkum tere kii nañ di Seydina Ousmane ñetti bopp ñetti ax yooyu yi dafa daje ci seen diggante ndax dañu wax ne mbokkum dëkkandoo bul ko xeeb bul ko bañ bul ko yem mbokkum diini na ngeen bokk bëgg bokk bokk jubluwaay bokk pas-pas mbokkum deret nee na na ngeen na ngeen bëggante yërëmante tey dimbalante kii fi teew nag tey man tey laa ko mos a teg bët waaye seen mbokku deret la seen mbokkum diini la seen mbokkum dëkkandoo te jàpp naa ne ax yooyu nag bu ci ne matal na ko boo déggee mën a ne nag seen mbokku deret la boo demee Bawol boo déggee ñu ne teeñ mooy le roi di Bawol ngeen ngeen sëtu ci teeñ Maafaan Thiaw moom mu sëtu ci teeñ bi langaan ngom teeñ Maafaan Thiaw di euh, bi langaan ngom di nijaayam te yaay teeñ Maafaan Thiaw donc moo tax ma ne seen mbokku deret la ma di leen indil nag moom ni mu sëtoo rek ci teeñ fam bi langaan ndax kër dama diglu yaayam béti ngom li ma ci gën a nag ñor ba mu jëlee kàddu sama mbokk la jëkk a tudd ko ñuy wax ku jëmboo mu ne mu ngi nii depuis Ousmane taxawale nii ba léegi mu ci wet mu am nag aada bu dox su suma diggante ak ñoom moom ñi mu sëtoo ci teñ teñ fa bi langaar dañ wax ne mursid ku ñuy wax njàmme ngom moo jur yuq moo jur saanu ngom saanu jur ku ñuy wax lat sukk saanu ngom lat sukk saanu ngom boobu nag moo jur teñ fa bi langaar ngom douzième sëñ Fàllu Langaar jur ku ñu naan bëkka ngom bëkka jur ku ñu naan yuqa ngom ju yuqa ngom jur saanu xëja ngom saanu jur maangoom maangoom anta jóob maangoom anta jóob jur ma dikkee fa wadd ma dikkee fa wadd jur Mamadou ngom Mamadou ngom jur xadi xadi jur ko moom mi ba pare nag teñ Fàllu Langaar moom di nijaayee teñ maafaan cew ni leen meñ teñ maafaan moo jur ku ñu naan Sàmba Ngajal maafaan cew moom dëkk dëkkoon soxna suñu naan Yacine Diop Mar Ndiaye ñu ngi ca àll ba ca gaawal Youssou Ndour dégg ngeen di ko way naan jigéen bi man góor am moom biram biram jur xayaan xayaan jur sombal sombal la jóge woon làmbaay na dañ ko woo ci sawu jant takke làmbaay ñëw puut jóge puut ñëw yoof ba mu ñëw mu samp kër am doom di neen décce caw décce jur Alassane ak Seyni Alassane wàcc di liggéey ca nguneen Seyni samp kër jur Ibrahima Ceewi nii ma Ceewi Seyni ma tàndu xariñam ak Alassane mu tudde ko seexam frère am ba wàññeeku. Alassane boobu moo jur Seydina Limamou ak juróom ci ñu mel ni ñoom. loolu laa leen bëggoon a leeral. di am nag moom lu ma koy dénk amit loo xamante ni nit ñi dañ ko gis ci moom dama ne kii kuy wër su bopp. ba daj ko bàyyi ko keneen koo jàpp danga ko bàyyi. Uh-huh. kuy wër jullit ba daj ko bàyyi ko keneen koo jàpp.